jappelé ko ndawu ties jappelé ko xale ties muy année bu jëk bi téeméeri million ak fuk muy 110 millions yo xamante ni mairie Thiès génne na ci xaalisu bopam ci kopparu bopam yu bokkut ak 12 millions yi nga xamante ni nañ ko def ka ay subvention muy amical des étudiants Thiessois bi nek Dakar bi nek Bambey bi nek Saint-Louis ak bi nek Ziguinchor yoo xamante ni génne nañ ko ci première année bi mu nekk ay bourse de formation ngir ñi jàppale leen ngeen mën a jàng ni ñëpp loolu moo waral cinq cent cinquante bénéficiaires am na ci cinquante bénéficiaires ci première année boobu war a def ay diplômes yoo xam ni BEP CAP BTS ak licence ci première année ci suñu yéenee mooy déwén ci heure bi ñu doubler budget bi nga xamante ni dugal nañ ko ci bourse sama yéene mooy balaa suñu mandat bi di sori ñu mën a arriver à 2000 mille boursiers à Thiès 2000 mille boursiers sama yéene sax dem na ba bu ëllëgee ñu am suffisamment de moyens di génne benn enveloppe boo xam ne ay bourses étrangères lay doon pour doomu Thiès yi dem jàngi ñibbisiwaat tabax Thiès bourse yi nag joxuñu leen ko pour que ngeen toog seeni kër déedéet dañoo bëgg ngeen dem jàngi ngeen am diplôme ku bëgg ñu renouveler leen la ko da ngay jàng jàll boo jàngee jàllul demeen nga ñëw toog mairie baat naan monsieur le maire renouveler ma ko déedéet dañ koy jox ñi bëgg a jàng koy jox ñi bëgg a jàng parce que bourse bi dañ leen ko jox pour que ngeen jàng ku bëgg mairie bi renouveler ko da ngay jàng nga passé nga jàll da ngay jàng nga passé indi sa bulletin ñu xam ne passé nga mairie bi renouveler la bourse boobu nga jàngaat jàll mairie bi renouveler la bourse boobu nga am sa licence nga jàngaat nga jàll nga ni damaa bëgg a def master mairie bi nekk ci sa wet nga jàng am sa master nga jàngaat ba am sa master mairie bi ak structure état bi nga xamante ni ñooy liggéey dans le cadre de l' emploi ñu jàppale leen ba ngeen am liggéey ñun soxlawuñu ngeen wax ñu jërëjëf xam nga nu ngeen ñuy waxee jërëjëf ngeen tekki jàppale seen i yaay ak seen i mbokk séentuwuñ dara ci yéen séentuwuñ ci dara séentuwuñ ci sax politique ku nekk lu la neex defal demal fu la neex xam nga lu ñu bëgg ngeen jàng am seen i diplôme ngeen tekki jàppale seen i wéyjur jàppale seen i mbokk ngeen gañe seen dignité bu dee jigéen kenn bañ laa yépp bu dee góor kenn bañ laa yépp loolu lañ leen di souhaiter je vous remercie